asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 10 juillet 2020 ñëw ak yi yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy tey doore ko mel ni ki yëglikaay bi nag tey fa mu xëy génn guy gi ma nekk ci États-Unis xëy dalal guy gi nag ka mu xëy di dànkaafu du kenn ku du rëg-rëg mu caaroy guy gi nee na daal li am ba des daal rëg-rëg na xam boppam ndax guy gi nee na daal bis bu yàlla defee maa moom ñu jàkkaarloo li ma ko mën a xamal daal mooy ni moom xanaa lenn ko mën a muccal ma bañ koo jàpp waaye bis bu ma ko jàppee moom guy gi nee na moom bu kërogee danaa ko simpi ba Sénégal yëpp di ko séen mu dóor ko ci suuf te nee na maa ngi moom balaa noo bëre dañuy xeex ba mu saf-sap guy gi moo xëy tey di wax lool nee na balaa bëre rëg-rëg moom faw ñuy jàmmaarloo juróom minutes yoo xam ne loxo yi day jóg ñu essence seen te ay leneen bu ñu ca pare nag su ma ko jàppee ca laa koy doog a def li ma koy def loolu waxi ki nga xam ne nii moom moo di guy gi la ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb mel ni ki tey bu nu continuer ba tey rek ci loolu nga xam ne nii moom moo di ci làmb ji jàppal moo xam rëg-rëg la moo xam guy gi moo xam Sa Thiès wala Garga Mbossé mel ni ki nag ay soog la yoo xam ne ni daal ñaar la yoo xam ne mu ngi ci taabal ji tege ki koy décroché mooy li nga xam ne nii moom moo di wax ji kan mooy am boobu combat ba tëgg ko yëglikaay bee xëy tey ñëw dinu ko wax ñeneen ñoo xam ne ni moom seenum combat taxawal nañ ko muy ki nga xam ne nii moo di Boursine bu bawal ak mobile Boursine nag ma ngay dànkaaf mobile moom tamit nee da koo jël daal ngir daan ko loolu daal mooy ay waxam beneen combat boo xam ne comme espoir la ñu taxawal ko ka ko def moo di idaali ñing muy ki nga xam ne moo di dab daan ak mbaytin senior ba nekk fa nga xam ne moo ca géejawaay wax ñu lu mel ni kii noonu ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay bi nga xam ne nii moo di sunu làmb mu mel ni kii nag diggante ki nga xam ne nii moo di Tafatine Boy Niang ak Lac de Guiers numéro 2 mel ni ki nag combat boobu moom benn combat la boo xam ne pour ñetti VIP loolu yëglikaay ba xëy tey ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci yëglikaay ba nga xam ne nii moom moo di sunu làmb dañuy dugg ba ca biir a biir kan fay fekk nag mooy ki nga xam ne moo di Maam Mor doomu fas ba nekk lee Tigres mu mel ni ki moom day juróom-ñaari at ngi yoo xam ne nii daal daanu defu ko maanaam te nekk na mbër moo xam ne daal boo demee ba nekk ci sa gént yu neex a neex boo dajeek Maam xas sa gént yàq ko maanaam bëri ak yow daan la mu mel ni daal problème mu mbay géey ba daal daa mel ni fi mu nii daal moom mooy avenir école de lutte les tigres ba nga xam ne moom la mbay géey jiite yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu jàppal yëglikaay bi di sunu làmb daal moo xëye tey andil ñu ko nga xam ne moo di Mame Mor ba tey bu ñu continuer ci bi nga xam ne moo di record mu mel ni ki nag lañ fay fekk daal mooy benn combat boo xam ne nii ay VIP ñoo ko seq maanaam daal jàppal moo xam tafaatin la ki nga xam ne nii moo di Lac de Guiers numéro 2 wala Boy Niang yëglikaay bi xëy na tey ñëw andil ñu ko mu mel ni ki nag mbir ma Amadou Kati Diop moom joxe na ca xalaatam moom jàpp na revanche ka nga xam ne moo di lakk ak tafaatin lu war a mën a am am la heure ba daal jot na sone na booy kayre tamit gis-gis bu mel noonu la am ne moo xam tafaatin lak wala tafaatin booy ñang ne bu ci mën a am daal dana baax jàppal loolu moom noonu la ko gisee ñoxo baay tamit tafaatin la gis ak lakk ne na mënta ñàkk sawru faal tamit gis na boobu combat boo bëggee dëgg dëgg keneen koo xam ne nii moom ñëw na di wax wala koo xam ne nii wane nañ ko wala ñoo xam ne wane nañ leen muy garga numéro deux ak ka nga xam ne nii moo di maama Lamine ñoom ñaar nag seen combat léegi moom taxaw def na ko saa Thiès garga mboosu tamit boobu combat ñu ngi koy démarré ba nga xam ne fi mu nekk nii daal daa ni sori wees na ca ngir combat ba war a mën a taxaw diggante Ngor moom seeni affaire moo doxatul daa mel ni deux victoires trois défaites benn niil lañ jot a koo def jàppal yëglikaay baa xëy tey ñëw wax ñu ko maanaam seeru ki nga xam ne moo di guy gi moom am na nag ay responsabilités yoo xam ne nii jox nañ ko ko fi mu nekk nii mu jiite ko di benn bureau boo xam ne association guy gi daal fal nañ ko fal bu bees muy association ànd taxawu la nga xam ne nii moo di làmb yëglikaay bi di record a xëy ñëw tey wax ñu lu mel ni ki noonu ba tey beneen xibaar boo xam ne dañ koy fekk xam ne mu di ci Caaroy moom daa mel fi mu nekk nii utal ko adversaire la ñuy def ndax signé na nag ab contrat ak ña nga xam ne ñoo di waa CFM maanaam groupe Futur Média ngir ñu utal ko adversaire mu mën a ñëw sëgg ci làmb ji bëre yàgg maar tey la àjjuma xam naa nag xiif ba moom ma jàpp. àjjuma ji <laughs> maa ngi lay delloo ziar yow tamit ah tey sa garaam bu naar rafet na di nuyu ñëpp si àjjuma ji leen ziar leen ñaanal jàmm di leen balwaq. ngurbaan. bu baax baax ah. ngurbaan waaw loolaa tax mu baax dafa baax su su ay si bureau yooyu yooyu. yooyu daa baax man ay ay ngurbaan. waa non moom kay faw nga def ci man dara moom parce que tey jii moom ni mu xëyaale moom day na waar. doy na waar waaw nga xam ne moom mooy euh, mi ngi sànni nag daal euh, ki nga xam ne moom mooy euh, rëdd nee na daal daal daa jàpp ne bés bu ñu yàlla defee ñu seq combat moom bu kenn kenn mënta tere mu simpi ko ba ñëpp di ko seen mu dóor ci suuf loolu la wax nee na daal bés bu ko jàppee moom dana ko jàngal nu ñuy bëree te simpi bi mënu cee rëcc waaw loolu nag yàgg naa am ci làmb xam nga parce que ñoom ñaar seen combat tamit dafa bokk ci li ñuy di coow ba depuis boobu ba tey yaa dégg kon defe naa ne mm, simpi rëg-rëg nag ci làmb newuma du du lu yomb waaye nag dina metti waaw xam naa loolu moom du doon lu yomb waaye guy gi nag mbër mi muy bëreel fexeel bu mu dugal loxo ci sa ngemb parce yàlla may na ko ci côté boobu ba nga xam ne ni daal xam naa kon daal seen combat fi mu nii moom su yeboo rek promoteurs yi jéem ci wax ndax xam naa guy gi ak euh, rëg-rëg moom ku ko am am lamb ju neex ndey kumba ginnaaw cinq na moom nee na daal pare boo xam ne cinq minutes la bu a rëg-rëg mu ah, di dóorante mbaa duñ ci dóor kenn mu ah, kon lu fi desam na promoteurs yi a lijjanti boobu combat waaw kon boog leer na Babacar nag beneen combat bi nga xam ne moom tamit suñu lamb si la ñëw mooy nee na benn tenor ñetti tenor pour benn combat maanaam daal boo ñaandee tafaatin la foofu daal dafa war a génn te itam bu fa génnee du bett kenn ñoom ñett ñooñu moom fi mu nekk nii kuñ ci jox kenn ki rek damay jàpp ne làmb ju war a mën a nekk la. Mhm. Euh, journal tamit ne am na euh, yoo xam ne neex euh, muy diggante Reug ak Gouye Gui Sa Thiès ak Garga ba tey foofu itam lees fa def day day day nekk làmb rek. Mhm. waaw moom kay ay combat yu baax a baax foor a génn ba tey. Mhm. waaw euh, Bour Sine tamit mi ngi arrêté ki nga xam ne moom mooy mobile 2 ndax seen combat taxaw na nee daal dafa jël combat rek pour daan ko moom bi nga xam ne mooy loolu moom loolu Bour Sine wax defe naa ne mooy mooy mooy mooy li nga xam ne nii moom la war a mën a yóbbaale parce que dafa teglante ñaari defet. Euh, Babacar tamit nee ñu yi euh, daal yi moom taxawal na combat bu dox si diggante Dab daan ak Mbaye Tine Junior. daan ak Mbaye Tine waaw loolu da la Idaly def ñu koy nuyu di ko jaar Idaly ñu ngi moom tamit muy affiche boo xam ne espoir la yoo xam ne nii taxawal na ko ah ñuy ñaan yàlla fekk ko te tal ko rek muy daam am solo daal noo bokk même wax tey nee nañu euh, euh, benn 3 VIP pour benn combat diggante Boy Niang 2 Lac de Guiers ak Tapha Tine mais nag technicien yu ñu laaj yëpp ki su mel ni Kati Diop ak ñoo xam bàyyi Sow Faye ñoom ñëpp lu ñu gis mooy combat bu war a dox si booy euh, Lac de defe naa ne daal li olof nu wax rek moo si am li ñëpp wax mooy dëgg te la ma doon wax rek si combat bi laa lay continuer wax 1 plus 1 égale 2 la diggante Lac ak Tapha boo ci dugalee booy Niang tamit ba tey day den nekkaat noonu rek defe naa ne loolu ñëpp waxandoo mooy li am maanaam ñoom ñett ñooñu kuñ ci booleeg sa morom rek jàppal ne lamb da ko soxla actuellement. léegi mm-hmm. mm. waaw loolu day lu war a mën a am parce que defe naa ne wax ji amoon na fan yi Mama Lamine Garga de xam nga ba yàlla dogal na kon avancé génn na kon defe naa fi mu nekk nii moom dañ ciy gërëm rek waa Vox Arena ak tamit taxawaay bi nga xam ne ñëw nañu indi combat bu nga xam ne combat bu neex a neex yàlla na taxaw la ñuy ñaan parce que làmb la joo xam ne nii bu taxawee defe naa ne den neex tamit amateur yi daa ni daal fi nekk nii day kumba liy xeeñ daal neex na daal waa foofu si Leewtoo point net li na moom Reug Reug desal ko mi. waaw waaw loolu day mooy li ma la rek ci su naree nag daal su baxee dafay xeeñ waa GFM nag yaakaar naa ne ñoom tamit comme la ma waxoon ñëwoon nañ fi ay ay jamono indi woon fi affiche bu neex muy Balla Ëmma tey defe naa ne suñu indiwaatee li nga xam ne nii mooy Reug Reug signé ak moom contrat utal ko adversaire defe naa dañuy ñaan yàlla ñu utal ko ñu am adversaire rek ki ko mën a booleel parce que defe naa moom itam mbër la ci làmb ji la bokk moom Reug Reug moom. Euh, depuis États-Unis Baye Fall jàmm gën a papa yi si kër gi nga xam ne mooy ASEC Chérif Khoudia Seck depuis Italie Daouda aussi Seck euh, depuis Italie yaa ngi si biir di nuyu Djibi Bamba aussi yaa ngi si biir Babacar du nuyu daal moo ko internet yëpp nga xam ne ñoom la ñuy safoo baax waaw loolu du mën a ñàkk fu ñu mën a nekk rek ñu ngi di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di ko sàqu si ñoom xam nga ñoom ñëpp du ñu leen mën a bañ a nuyu xam nga ñoom tuuti yaay Sarr ñoom Khady Rose ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ñoom Ndongo Fall ca Italie Habib xam nga ñoom ñëpp maa leen di bëggee di nuyu ñi nga xam ne ni daal ñooy soppe yi xarit yi am di jàmm yi parce que olof ne na kiy wax kii déglu mooy mbokkam te defe naa ne amuñu leen lu dul ñoom kon daal encore une fois rek yàlla leen yàlla kattanal leen may chaque jour connexion bu ngeen ñuy mën di toppee di ñu seetaan parce que loolu mooy ci li nga xam ne nii moo am solo di ballu ñëpp àq nag di bal ñëpp àq parce que des ñu wax wax joo xam ne nii man xam nga déraay te duñ ci bàyyi xel exactement te yooyu yëpp dafa jaar di bàyyi xel ba nga xam ne ni daal bëgg nañ ñëpp nday Gumba Fall nuyu ñëpp di nuyuwaat Jax nag ndax yére bi ma sol nii ci moom la jógee yaa ngi dégg Jax promoteur lu xam nga ko waaw tey moom tax nag gis nga ma delluwaat Jurbel nii jaareem ak mbaxana mi